d'habitude ça nous pas l'habitude de verser des polémique mais ce dafa nekk loo il faut que nous rétablir la vérité parce que l'histoire retiendra pour Nous sommes des ay euh, personne personnalité publique Nous ñuy def mu am incidence ci ñi ñu sopp ak euh, ñeneen ñi nga xamante aussi xëy wi donc euh, vidéo bi ñuy wax dama ci bëgg apporter ay éclaircissement parce que pour la postérité dafa baax ñu léral parce que vidéo bi sama kër la xewé sama kër ci Dagga jaxaté nek ci commune ngatch nawdé alors liko waralon moy euh, sama collègue maire yi nek bureau association des maires muy AMS dañu ñëwone en réunion à Kaolack réunion décentralisée ba paré, paree ma di leen defal teraanga invité leen sama kër pour ñu reer alors man en bonne sénégalaise sama culture li ma xam mooy sama gan bu ñëwee sama cœur. dama koy teral man may jaamam ba ba muy ñibbee ndax mënoon naa toog di oote ku servir ak ku def lee mais man xaw ma loolu sénégalaise laa damay jóg teral samay gan

donc euh, loolu moo waral euh, vidéo Bobu ñuy wax ñu gis ma ci ma ci ngooyaan man nak sénégalaise la damay fecc damay kaf damay ré surtout nak ngooyaan voilà dama koy savourer et puis samay gan dama len di mettre à l'aise wax deug yalla ci kaf ré ak décompression kérok la fa amone dafa rafet parce que le bureau de l'association des maires parti politique yëpp fa dajé c'était une occasion pour ñun ñu wane ni Sénégal ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk baay même bu ñu bokkul ay vision politique donc looloo tax ñu gisoon fa Bamba euh, depuis vidéo bi mu njëkk a génn moom lañ doon attaqué alors que damay wax ne euh, man damay jël exemple ci man sama papa gaañu na sama yaay gaañu awma lu ma gën a naqari ci lool ci sama àddina te pourtant maa ngi kaf maa ngi ree kon grandir ak dund ci àddina mooy mën a dund ak say naqar nga mën a di kaf di re mais terewul la la naqari mu ngi la naqari donc euh, je pense que vidéo bi loolu rek la euh, du leneen may wax nag euh, aussi ñi nga xam ne dañu nekk ci àddina bi yépp di ma bégee di ma encourager di ma soutenir di gis seen bopp ci li may def que wax dëgg yàlla événement bu malheureux bi am muy sama wàllu sëy kooku nag dama leen di ñaan ñu bàyyee ma ko ndax euh, man may sëy ma tàggoowee li tax ma tàggoo nag na ma leen di ñaan rek ñu bàyyee ma ko donc euh, loolu rek laa leen di ñaan te ñu xam ne mbir yàllaa koy dogal sëy bu amee yàllaa ko dogal bu tasee aussi yàllaa ko dogal donc loolu laa amoon lu ma ciy wax di balu ñëpp àq surtout euh, bu dee li ñi nga xam ne man damay def loo xam ne dañ ci gis seen bopp di ci kontaan Euh, ma leen di wax ne na seen xel dal maa ngi ci jàmm maa ngi ci salaam euh, dara mettiwu maa ngi dox samay soxla donc alhamdulilah rabbi alamin may wax rek ne euh, vidéo boobu ñuy wax ne mooy moo tax suñu sëy ñu tàggoo may wax ne vidéo bi accéléré dara wàññiwul dara loolu ça yenn rien voir loolu taxul vidéo bi taxul sëy bi tas Euh, terew ko amusi ben incidence li waral nak ñu décider tago koku damay ñaan rek nit ñi euh, ñu bayé ñuko ndax ñun ñaar la concerné donc ma ngi leen di gërëm di leen sante di leen xamal né euh sëriñ sama frère la sama càmmiñ la té ñu ngi garder relation yu mel euh même bu dee tagon nañu waaye jéppi wuñu donc alhamdulilah rabbi alamin ma di leen gërëm di leen sant jërë ngeen jëf We'll be right back.